Kadi saf le te Chaba remercie ses partenaires. Moudou Gay, artiste peintre. Planète Couture. Kuna Fashion. Chaba. findanani tase gargod bi xew fi cof kayida je mer caba jar na taxaw waay are mer ca ba ñëpp ràññe na ko are mer ca ba ñëpp du dara pour man yow li ñu defal ñun mënuñu la defal loolu sax kër gi taxaw nga fi ku ne taxaw nga ma taxaw nga méng kon tey situation bu àggee fii nii ñun yoon la tey ñu taxaw noonu man tey am naa ko tey je m'engage devant Dieu et les hommes à ce que tay kër gi man ma fi joxe dépense loolu du problème. dépense sama le té te wareefu quoi dama koy def y pas de problème mais on gère. Mamba ah li wax de wax deug yalla seet na sama xol waaye nak loolu mom bo jëlé engagement bi day metti ndax yor kër dafa metti té déjà yaa yor sa kër yor sa njaboot baax na jërëjëf. Meng. yeah, yeah, yeah, yeah, Meng. Papa, boy, Meng. Huh? What you say? Si. What's it make me? What's I? Change it. Mais Meng, ci hein? lo ci jàmm, maa ngi sant bu baax Meng. def fii Meng? Man fii laay liggéey. les ngay jóobee. Fii de mooy sama bérébu liggéeykaay bi de laay laay daanee sama quoi. ah mais ma dem maa géré gàllankoor fii de fii laa ne di daan sama doole. mais mais xam nga lu ñuy def. li ma bëgg mooy yii yëpp nga bàyyi nga ñëw ñu ànd ñu dem nga jóge situation yi nga nekk. Zé defal naa ko nag gis nga man mii di wax ak yow yow nee nga démb metti woon ñu ànd nekk ci ba tey yàlla def jàmm waaye man it tolloon naa ci ay gudd yoo xam bërsitéwul ki di borom gargot bi di yaay chaba mo nekkon sama yaay nek sama bay nek sama mbok ba pare mat ko seuk na ah, kon momo li yow dedet man dan ma fi tek may liggéeyal yaay chaba lay meng xam nga man sama xari nga munu ma la bañal dara parce que daño yàgg ñu bëgg moy nga arrêté li ngay def du maire bi mi fi maire ba ci fi léegi nañ dem man ma ñaan ko ci ñeek ak teranga ak reconnaissance bima am ci lim la defal yépp ñu dem ma ñaan ko. xaaral ma léegi place bi ndax sàcc yi danoo bare léegi. bébé monsieur eh. man laa bëgg nag ceebu jawe yu saf saf. salaamaaleykum kër gi na mel. mel nga. Chara lañ kati nañ def. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga. alhamdulilah. daan na rek. Hmm, yaa caba kii Zé la tudd sama xarit la sama ami d'enfance la am lu ma wax. waaye dama ne ko comme yàlla dogal na dama am njaati bi nan dem ba ca moom ndax tungu ne du teew ñuy nataal te wax dëgg ne xaal lu lëg lekkee alam na ko gërëmee cooy moo tax ma ni koon daal na ñëw xamanteek ak yow g yaay caba moo nekk bi kii katti la tudd du soxnay shérif mi nga xam mooy taawam ah, kii toog nii mooy bintu mhm. mooy caatam bu jigéen d'accord euh, kii toog nii nag ci peg gi mhm. moom ñambaas la bu ñu yokk ci serveur yàqu ci dara daal waaw moom eh, tamit noonu. waaw maman. Mhm. ça yàlla bér a si jàmm. alhamdulilah bisimilah bisimilah. man de méng mi sama xarit la bu yàgg sax te wax na ma lu baax li nga def ci ci ngay def ci dëkk bi yëpp. Mhm. wax na ma ni nga ko jàppalee ak fi nga ko féete ba tax na maam lu ma doon waxtaan ak moom bi ma ñëwee. ci la ma xamal ni ci yow mii la nekk ba tax na moo géré gargot bii nii mën ne ko baax na léegi foog ñu dem ma gisanteeg mère Thiaba mais dama ñëwoon ne naa ñëw en tant que yaay ak doom ma ñaan la rek ñëwuma pour foxati ñëwuma pour jaay doole ñëwuma pour dara ma la koy ñaan rek méng mi nga aal ko parce que dama bëri ay entreprise yu ma yor ay chantier yoo xam ni man mii sama jëmm ji mënuma koo gérer man donc te moom bokk na ci koo xam ni ba ñuy xale ba léegi dama ko mës wóolu ba xamee ma ko ci dara ñaak fayda bi ma ko waxee nag moom dana ma man moom duma def dara te du ci taag duma ma du ma taagu mhm. moo taxoon ma ne ko léegi naa ñëw rek ñaan la saay saay vraiment yow comprendre li xew pour yow yow mën nga jëlee meng ci gargot bi yóbbu ko meng dafa loyal meng li ko meer ceeba defal yëpp non non non non loolu mënul nekk meng du kuy wor kii mooy Francesco Totti bu Roma non génn sa xel ci loolu sax non no mais kii dafa loyal kii mënul bàyyi gargot bi di la topp meng xalaatul loolu sax <laughs> waaye yéen pour yéen l'argent peut tout acheter quoi <laughs> tu te meng bi respect man dama la bëgg ci sa loyauté quoi dégg nga. yaakaar naa mbir mi ban kay waxtaan su ma xalaatoon ni sax Sakoum du mi ngi fi kon kii damay reporter rendez-vous waaye comme lii la yàlla dogal ñu sante ko man yaay caba jii nga ma loo xam ci àdduna mënuma la ko fay fii te mënuma la ko fay ci kanam borom mënuma la ko fay moo tax liggéey bi boo nee ma toogal damay toog du ma dem de te du ma ci am lenn lu ma ciy réccu nag. nee ko toogal.

dëgg la jamono bi fi mu toll métti na lool ndax kii maay maay yaay mooy sama taaw kii soxnaam la dañ doon liggéey seen liggéey par am problème ñu toog si kër gi yaakaar nañu lenn dul gar got bi waaye alhamdulilah rabbil alamina yàlla ngi ñu doon jox lu ñuy suturloo moom su ma gisee ku jàppale mbéngam yi dama la koy bàyyi mu dem ñaanal leen yàlla yàlla barkeel. dëgg la mais man moom mbéng mi. ak sa njaboot gi laa yemale parce que ñoom ñëpp nga bokk uuf mais ñoom def nañ formation. oui effectivement def naa am licence en banque et finance quoi. ah bon ouais. ok. et sa soxna si. man gestion des entreprises gestion là. def. ah gestion d' entreprise nga def sa mm. Calme-moi. kalman. Euh, man damay def ay voyages. Hmm? genre damay dem di ñëw di jënd ay marchandises. Dubaï wala <laughs> genre. Eh, non Mauritanie damay jënd ay suukar ay biscuit ay mulfa di ñëw di ko placé waat fii maa nekk si gargot bi tamit may entretenir kër gi. mais temps yi xam nga yoon bi dafa metti ndax douanier yi. Ah, aussi dama am ay projet yu mag. waaw damay def eh, kii laa influenceuse damay def TikTok. ok waaw mun naa la sax wan sama continuer. ah non garaawul garaawul. Ah, yàlla baax na jaru ko jaru ko jaru ko mais xamu ñuy def maman léegi man dinaa jox sa doom bi sama carte léegi pour bu xëyee moo soxnaan si mën nañoo woo sama secrétaire après bu ko defee ñu am entretien ak moom li ci war yëpp man dinaa ko def incha allah. li ma siy teg daal mooy. Mhm. fa la jublu yàlla na fa yàlla jublu yàlla na yàlla barkeel liggéey bi yàlla na si yàlla teg loxoom ba lépp loolu leen si nam ak képp ku si wërsëgam nekk rek yàlla defal ko ko si daraja nabi Moustapha kii sa kii mën naa la kiyal visibilité sax moo la ko kiyee publier bintu 600 abonnés nga am yaakaar naa sant naa la ndax wax dëgg yàlla li nga def loolu la yàlla santaane ay nit bu ñu dëkkee nga gis luy lor sa dëkk jëm si moom danga ko koy teel wax tax dëgg yàlla ginnaaw yow sama gët yii du mësa si cheikh bi ngoon man amal naa la jaajëf bu baax maa ngi lay sant di la gërëm waaw mais soxna Thiaw loolu du dara yow mérito nga loo lool yow nit ku baax nga du man koñ nañ ko bo doon gis tay lu bon di ñew ci man dang nga koy fank jigen ju bax nga bëgg njabon nga waaw sa mbaax daal jigen, layam layam ko sha allah et puis yow jigen nga ju mat jigen soxna nga te kat gor yalla yow lañuy te man santina sa mbop ci rôle bobu ngoñ comprendre ba li nga bëgg wax dé do doo si wat nga dé ciow li mbeut bëgg la bar bëgg bo bëggé dégg dëgg dama la bëgg pour soxna légui dëgg lu ma wax la olof ndjay néna wacc wàcc daanoo ci gën a gaaw nga nuyu sa virage bi sa layam layam yëpp fi nga jëm ci wo xam nga bëgg rek sa bop bi bu mu ñaar te bu mu ñett bul ma ko waxati yow ak melni cheikh bi soxlo ma len sama dund ndax yéen doo leen kilifa matu leen kilifa. soxna Thiaba yaa ngi jum de man ak cheikh bi nuroowuñu duñu mës a nuroo. cheikh bi yéen wala jàmm te man dama la bëgg dama la mës a bëgg. yeggale yeggale ah, nag père nag yéen nag yéen kenn xamul na lu ngeen bëgg nag. yéen daal sama yaa ngi eh bul wax de boo bëggee jàmm rek bul wax sinon sa kaw boobu laay taxaw doo ko wax li may wax yamal de. yeen sama yaay ngeen bëgg a ben balu tennis jappé ko Roland Garros. Rafael Nadal taxawé né Djokovic taxawé né ngeen mel ni compétir loolu fi amé té yow bu doon compétition yow yow ké mal parti yow do gagné style vestimentaire bi ma soxla pour sama futur papa dara nekkul ci yow nga tak say joni yow kenn xamul da nga doxal fi wala hippodrome yow moko du nga jëm fan nga dégg course face sa dàll yu diis yi bo fi kajé nit est-ce que du am problème may wax nga wengal sa fent ku la xool xam nga bëgg sax fi du boîte diine lañuy dund fi un homme s'avertit en vol de li ma la mën wax nak wax na la so lajol cheikh bi do fi du dama nga laaj cheikh bi kan moy doomu mer bi mom bu waxtane ak yow bu lako sa fit maye nga ñëwa bu lako sa fit mayu nga toog mais en attendant jugal acca waay père jugal fajkat yi saf sell te remer caba fi ndaanaan yi tase bi xew fi cof kay daje.